nga lu leer yëkkati mbër buy songi lu leer rek tax muy songi sa combat bi passé li la xañ mooy da ngaa songi forcé ñu yokk la suruxal la loolu la évité moo tax kii yàlla moo nu boole ñu bokk sëriñ Babacar ñoo boole ñoo bokk def barke sëriñ Babacar yow la fekk si teyel nga bëre wàcci bàyyi góos muy dem ñii ñëpp samay père lan ñii ñëpp del bàyyi sa góos muy dem fu bunta amee rek bi dal léegi li nga bëgg di gab ci kàttu yàlla yàlla na leen mën a lan nga bëgg combat bi passé <laughs> dama juum <laughs> dama ñëw début bi xale quoi Thiandoum nee na na nga daan bëree boo ko bàyyiwul boo ñëwee cinq secondes laa mujj. Thiandoum Thiandoum maa gën a pare ci kanam tuuti ba ma koy won man maa rectifié sama bopp léegi léegi incha allah. yaa rectifié sa bopp. waaw incha allah waaw. bu ma as am lépp lay am. si xeex lay jeexee sax boo soo moytuwul. waaw wallaay lépp nii la man amuñu dul nii jëlal ñu amuñu dul nii. mais li naka nga koy amee ba noppi di nga jëbëree. waaw parce que mbëri tapé rek mbëri ñoo tapé mbëri bëggul lu mel ni ku daan ku ku daanu. ku daanu lañ gën a sawar. ku daanu lañ sawar ku daan billahi wallahi taala. tey bés lan la laaj. bi ne fulla ak fayda ak jom gën a confirmé woon ne man maa bokk ci làmb. bi nga bëggal xaw na la su tuut taxawaay daan. yàgg naa bëri yàgg nga sant samay combat ma ñu bëri ñëpp moo ëpp ñu bëri ay bés lu laaj naka nga war a joxe lu mu laaj fulla ak fayda ak jom ak ndam rek la laaj fulla ak fayda ak jom ak ndam la laaj xeex nag lu mu laaj rek si pare ma li ñaan mooy lim daa bëree na ko bëree rek lim daa bëree moom na ko ñëw bëree rek bu ko teggiwul combat bi duma indi insha allah lu laay ñaan yàlla daan bëree mooy arbitre bi daa seen ku góor dura daw songu te combat bi dama daa bëree rek moom moom bu bàyyiwul dix secondes cinq secondes bu ñëwul ma ñu fekk ko cinq secondes secondes yu gaaw na de su ñëwul ma fekk ko cinq secondes mu dis ma jëlee rabbi Ama nu mu leen filmé ma foto leen. Dama bàyyi ba ngeen ànd ma foto leen.

mbokk yi arbitre baa ngi wax ak ñaari mbër yi combat bi dox ci diggante Thiandoum 2 ak Ndiaga Diop Ndiaga Diop numéro 2 Thiandoum 2 kii Ndiaga Diop numéro numéro la tuddee boppam ki tuddee boppam Alaaji Malick Thiandoum Thiandoum deux moo ñu wan ginnaaw Ndiaga Diop la nu lool arbit baa ngi leen wax li làmb nangu ak li làmb bañ laaj na ay zizam laaj na Thiandoum deux laaj na Ndiaga Diop arbitre ba sifflé na mbokk yi combat spécial baa ngi noonu ku ci nekk yaa ngi kàbba sa morom candu mooñ war ginaaw Ndiaga Diop ñu jàkkaar lool booy xool kii di Ndiaga Diop moo xaw am tuut moo ëpp tuut waaye candum nee na ma laa ko may Ndiaga Diop ne ma maay sama bopp ah seconde daa xew Ndiaga Diop dox na ci kawam Ndiaga Diop jël na càndum daan na ko Ndiaga Diop Ndiaga Diop daan na càndum benn song la mu jeex Ndiaga Diop lay lay la da koo jël plaqué ko mbëkk ko mu jaaxaan ak moom. Daga Diop daan na ko gaay gaay gaay damay sant yàlla. barke sëñ Tuubaa sama place ma dul fii. mais maa ngi sant sama papa bu baax ndax mu koy sant xam naa ne li mu tëdd feebar moo tax mais wallaahi bu fekkoon am na wér billaay dépassé naa niveau bi barki alxuraan. non yàlla xam na ni kuy bëri si kaw làmb ji naa la jàngal bëri barki alxuraan Serigne Touba Mbacke. wallaahi azim keroog dama juum. def yëpp xale. ma juum dafay wax di waa Pikine yëpp parce que waa Pikine am na fu ñu ma teg am na fu ñu ma teg maa ngi leen di sant bu baax. bilaahi am na lu may représenté Pikine. sam papa champion d'Afrique la lu mu liggéey liggéey na ko. Sénégal man li ma war a liggéey man maa koy liggéey sam bopp man. loolu moo am bilaay samay morom nañ ma leen doon. xam nga tey jii lamb war na dépasser niveau bi tapé di ñoo bëri lamb ji mais parcelle Pikine la ba léegi Franc na ñëw. man li may wax. wallaahi jëf laa gën a mën amul benn mbër bu ma yeb mën ngaa géegi sama nga seetaan samay lamb song ma song parce que parce que keroog damaa ñëw def xale. te kiy bëre si di tax ngeen maal daax bëri walaay. mais yàlla baax na daal. dëgg la ñu ngi jégalu ñëpp. bu taxawee laa la wax ma def ko barki maam Seera Fall ma bu néew wax nag maa ngi tub di jégalu ñëpp waa Pikine maa def lépp parce que waa Pikine waa Pikine yabu leen waxu yabu waa Pikine te dañ maa respecté. baax na baax na waa Pikine dañ maa ma ab Eumeu Sène Ama Baldé Sokh yow yaay quatrième yaay cinquième njëwuma ne man maay loolu mais ñoom ñoo ko teg kon damay sant yàlla waaw te làmb mooy suma métier di nuyu sama papa bu baax dama ni kuy bëree di takk ngemb amu aw ma xaritu mbër aw ma rakki mbër waa Pikine laa bàyyi si làmb wallaahi sama cër si làmb fi ma jëm waa làmb ñoo koy ñoo nañ ma jox morom rek fi ma jëm fi gars jëm rek fa jëm fi gars jëm rek fa jëm mais maa ngi leen maa ngi maa ngi leen di sant di am contentement ah bëgg naa trop di leen jégaluwaat bu baax waaw yàlla baax na